am xam-xam dafa baax boo enregistré nit te yëgu ko nga yëpp jox ko juge dañ koy teg fële kon déplacement Kaolack ba Dakar bi amul njëriñ yoon moo ni c'est illégal nga enregistré nit yëgu ko collecte et division de données personnelles dañ ko mu enregistré xamul ko yëgoon te xamul ndax dana dem prison parce que plainte yi ñooy ñëw moo ñeneen ñoo ñuy wër ci di jaay affaire sëriñ seen plaide yëpp pare na dem prison moo des kon koo xam ne li nga def prison la war a yóbbu yoon nee na li ngay indi kenn du ko xool boo ñëwee wax ba pare perte nga sa billet avion wala sa sa essence toog ci juge bi li ngay wax yëpp bokkul fële ko teg ndax yoon moo ne contrôle boo xamoon doole arrêté naa ko sama taalibe la waaye. mën naa arrêté koo xam ne mën la yaakaar ànd ak àllaaxira ay waay Sénégal yàqu na et les valeurs ndeysaan cardinales de notre peuple de jom de kersa de sutura sutura amatul sax diggante sëriñ ak taalibeem taalibe di ko seetlu rek ndax nee na ko wutal ay milliards ñu lekk ci ay milliards bu ko ñëwee ñu lekk ci defal ma ko sama compte ñu ànd lekk ko <laughs> lekk ko dara gi daal di dem di wax kon yooyu mooy ñàkk xam ku xamoon da xam ni dossier bi du affaire audio dossier bi du affaire ay ñuy ñëw di wax loo dossier bi xam nga lan la yow la ak kii ndax yow la nga ne du ma la tontu ndax lan nga may laaj dafa ñaaw du ma ci tontu yow yow kay xam nga ni yow sànq nga sa bopp yéen ma dina laaj Sénégal yéen yëpp la laaj Sénégal. boo demee ci àttekat mu ne yéen yéen ñu lay ko def nga ne laaj lu ciy topp du ma man du tontu de Sénégal yéen lay laaj ku taxaw ni bi ma laajee nee naa ko mayu ma la nga dem a laaj yi yow bu dee àttekat nga dooy def da koy bàyyi ne ko defoo dara parce que yoon may na la yow àttekat bi ngay gëstu ki njiñ dara pour mu leeral la nga mu ne la tontu wu ma tontu ba juge ba man du ko ñemee wax comme moo taxaw ne ñëpp ko mu ne li mu ma laajee na ko je ne vous de me poser des questions infamantes qui portent loolu de moo ko wax ci télé bi rajo yëpp du ma yow nga ne kenn du la renvoyer en jugement juge bii gëstu balaa ñu ngeen tontu ma procureur di gëstu nga ne tontu ma ci complot bi nga bokk waaw kon Sénégal daal am na koo xam ne procureur je m'en fous bi je m'en fous procureur dama koy saaga ñu ko ci complot bi diffamation la ndax mu ngi diffamer procureur bari complot fu complot bi nekk du ma la tontu ndax da ngay yow procureur juge bi mayu ma la nga laaj ma lii ak lii ak lii moo ko waxal boppam de tey mu ñëwaat di fen naan tontu naa juge bi procureur la ak tontuwul waaw Ousmane Sonko bi jàpp na journaliste yi de jàllum journaliste ne leen dama ne ko mayu ma la nga dama laaj lii maa tontuwuloo ndax dem nga Dakar ne mayu ma la nga dem nga na waxoo dem nga waxoo ma nag demoo nga Paris nga ma la def dem naa Paris tontu nañu waaye mu yëpp Sénégal yi tey toog naan tontu naa juge bi waaye Sénégal yi ñi leen di gëm la ne Ousmane Sonko day war a nekk préfet du nekk préfet nekk gouverneur bay nekk président de la république impôt ne ko ñu dàq ko fa ndax di fen di fen ba nëpp bañ dàq ko fa ku mënul denc sa këre nga ne am détail nga yow maa doo jaay Sénégal bu la ko joxee kon defe naa ni ton naa ci boobu beneen bi. beneen bi mooy tey euh, euh, day Xadi voilà. leen koy toppee ci voilà loolu man dama ci tontu loolu parce que ci biir dossier bi la am na détails yoo xam ne ci dossier bi loolu secret instruction bi la dañ ko ci dëxiñ ci biir. mais xanaa leen koy ah, dama laaj ko ko wala laaj ko am dégg nee na avocat am li ñu toppee ne Khadija xanaa du léegi lii mu gën mu jox la ca laajee la biir jox la ci explication. yow yaa waxoon bés li ñuy toppee Sonko jàpp ni sañ na la la loolu loolu ñëpp xam nañ ko di yow xam nga wax nga ko sax. kon est-ce que Adji Sarr mën na ko toppee leneen li tam. loolu comme comme topp ñu Adji Sarr loolu yow lu ci sa yoon wala yow yaa jàngal juge bi liggéeyam xanaa sopp rek te leen wax li ngeen war a wax yem leen ci li ngeen war a wax. Adji Sarr fu ngeen déggee dañ ko yóbbu ci yoon wala juge bi moom kii moo gën a xam liggéeyam juge bi yow jàng nga droit juge bi def lu mat ñaar fukk ak juróom ci affaire affaire atte ah mais nag doyen des juges léegi benn journaliste bu ko jàngal liggéeyam ku ne na yem palaasam ku wecc sa ànd ku wàcc sa ànd ànd boo yéeg mu toj yaakaar non loolu laaj loolu loolu ñàkk mën laaj la laaj day am day am solo am gëdd ànd ak jamono waaye ndax aji saa wañu wane topp xam nga loolu ba yéeg yàlla ay waxi ndax si xatay la. est est da nga war a ci tontu loolu yëpp dossier bi la du wax ci dossier bi tey tey damay wax ci ki nga xam ne moo oo Sénégal ni moom dafa liggéey Sénégal nañ ko xeexal ba du ba kenn du ko àttee kooku mooy yëpp Sénégal. laa bëggoon a dugg ba xam ndax benn El Hadj Diouf position bu nekkoon ci lu soxaloon noonu troisième mandat ndax yaa ngi ci ba tey nga baal ba soxna si waxoon naa keroog dernière fois ne bu ma ko kenn parce que dama ne kenn mosuma gis ma changé position déglu ma dama ne naa fekk weesuwul koo xam ne mosul changé position chaque jour nga ko ndax ndax ndax am nga ñaareel ci mu ne la am naa ñaareel ba pare est-ce que yabeel yabeel weesuwul koo xam ne neewul man léegi léegi man monogame laa amatuma ñaareel dara changé wul nga bëgg ma laajaat dama ko laajaat loolu mooy soit naa fekk nga soit yàpp nga ma wala soit xam nga ma ci wax wax waxee ki ko fi def dina wax français yi laaj ko ko tey laajal ko tey kenn ñëw koo laaj koo ko laaj tey man ngeen yàpp man mi nga xam ne mosuma changé mu tax ñuy ree seetaan yi ree fi ñu war ree xam nañ ko ku ma dégg ma changé la ma waxoon da ngay dégg ba ma changé li ma waxoon nga ne ma El Hadj Diop nga ñu de Alaaji Diouf jàmmal nga ñu yaa fi waxoon lii dindi nga ko bu boobaa ma tontu la lu la fi waaye ci waxoon du wax ak France du wax ak RFI tey ba nga demee ñu laaj nga ko ndax nga ñu koo ko laaj tey ko laaj dee ni ko ragalee jaaxal na ma man kenn yàpp man mi changé wul benn nga naan ndax yaa ngi am ñaari jabar ma yàpp nga dajeeg man la sa waay ba ne takk daa seet am naa ñetti jabar ñu doy waa nga ne ma ndax am nga ñetti jabar te man la léegi wàññi naa benn mais lu loo loo ma déggal balaa dama wàññi ñaar dama wàññi benn non seen laaj da nga ko jëbale laaj seytaane dafa am laaj yoo xam ni am nañu waxoon dara waxeet xoolal laaju seytaane yi mooy laaju wax ñi waxoon waxeet te buñ taxawee jàlloo ngeen ngeen ni miig ni pat kenn du ko ñemee laaj yóbbu ko vaar kenn du ko Ousmane yaa ne woon Macky Sall am na droit troisième mandat kenn ci yéen du ko laaj kenn ci yéen ku ko laaj dee. d' accord naa ma ne am naa droit ña ñoo ñàkk ba kerse de ma ne. mais dañuy waxtaan rek.